léegi kurus gaa ngi nii téeméeri per la sëñ Modou. 100 mhm. per la benn bi rek laay bàyyi benn bi laalu moo ko léegi ma tàmbalee fii. isa jaa nasrullahi wal fath wa ra'aytan naas yadxuluuna fi diin fasabbih maam benn per xëccaat. Mhm. lii yomb na. waaw yomb na mbokk yi. cabinet Sajaratu Touba ngeen fekk fa Serigne Malick Guèye mi yàlla baaxal adresse bi nag benn la ñu nga ci Kër Massar terminus su 53 bi numéro téléphone bi di 77 539 19 04 wala 77 507 38 yéen ñi nga xamante ni da ngeen a jaaxle woon ci xeetu feebar yi moo xam diabète kyste fibrom arthrose impuissance sexuelle maanaam tëlee ci wàllum sëy moo xam prostate hémorroïde bi feeñ ak bi làqu maladi dermatologie sa bi yaram bi ami jafe-jafe am na fa tamit massage automatique ba ci massage manuel Serigne maa liggéey mi yàlla baaxal laa biir lool ci doomu aadama yi ne ma sa Sajaratu Touba bi képp koo xamante ni da ngaa am jafe-jafe ci wàllum këyit maanaam nga tukki wala nga bëgg a tukki wala nga bëgg ay muslaay képp koo xamante ni tamit cet dala sonal rawatina nag nga bëgg ubbeeku mbaayit nga bëgg am kaaraange maanaam aar sa bopp waajaa ngi nii Serigne Malick Guèye mi yàlla baaxal dina la tàggat ci wàllum xam maanaam secret yi nekk uh, ci téere alxuraan yi mën nga faa yegsi ngir wecceeku ko kon mbokk mbokk yi adresse bi benn la Kër Massar uh, terminus 53 cabinet Sadiaratou Touba ca Kër masaar terminus 53 ngeen fekk fa Serigne Malick Guèye mi yàlla baaxal mbaa ngeen woo ko ci 77 539 19 04 wala 77 507 38 63 kon mbokk yee xarit yi yegg leen fa seen aaja faju jërë ngeen jëf mbokk yeeg xarit yi nga xam ni yéen ñu topp ci seen télévision bu mag bi di sa Sadiaratou Touba ñu amati mbégte ak kontaante àndaat ak yéen ci beneen émission fas yéene waxtaane li nga xam ni xam-xam la mhm. tey nag ñu fas yéene waxtaane ay pàcc yu yaatoo yaatu waaye bu ci nekk rek dafa am solo dinañ waxtaanee secret Isa Dia ndax commencé woon nañ ko waaye danañ ko eggale ak njëriñ yi nga xam ne moo ci nekk waaye tamit danañ waxtaanee li nga xam ne mooy téere bi di sajaratu naim nga xam ne dafa nekk ci promotion Serigne Malick moo ko baaxee jaamu yàlla yi danañ waxtaanee sajaratu xuldi danañ waxtaanee sajaratu Touba moom it mu nekk téere bu am am solo xam naa du ma guddal dama koy jox rek bu ko defee ñu mën a tàbbi ci waxtaan wi sëñ Malick ñu ngi lay nuyu ñu lay dellu nuyu bu baax sëñ Modou. Mhm. alhamdulillahi alquduusi fi xaybi lhaahut almutajalla bil asma wa sifaat fi xadrati llaahut almaabudu fi aalami almalakut waljabarut wannaasut wasalaatu wasalaamu wa kullu man aamana bihi min aljinna wal ins sëñ Modou ñu leen di loolu nuyoo bu baax a baax di nuyu mboolem internet yi nga xam ne ñu ngi suivre Secret Touba waaye di leen wax rek ngeen gën di abone tey gën di laal cloche de notification bi su ko defee bépp vidéo boo xam dugg na rek ci biir chaîne bi mm-hmm. danañ koy daal di am incha allahu taala mm-hmm. ndax loolu mooy liy doxal liggéey bi incha allahu taala jërëjëf sëriñ mm-hmm. Malick comme ni nga ko waxee rek ñu ngi lay jaajëfal ci nuyoo bu sell boobu waaye tamit di fàttali mbokk yi ne tamit danañ waxtaanee kiis gu am solo goo xam ni ak bayra tubaab yaakaar naa ni ñi ko yittewoo bari na lool waaye sëñ Malick dañuy njëkkee ci li nga xam ni mooy ku xam jamono ji ñu toll xam ni gàmmu jege si na te mel euh, wi tawfiix boo xam ni ci téere Sajaratu yaa rabbi salli ala al mustafa yaa bi salli ala al mustafa mhm. yaa rabbi salli ala al mustafa mhm. sallallahu alayhi wa sallam mhm. li nga wax sangu bu tedd boobu moo tax ñu teg ci loolu dañuy wax ne ki gën a nay ci àdduna mooy ku dégg ñu tudd baatu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala moom te ci sallallahu alayhi wa sallam moo tax bi gàmm gi ñëwee comme ni ñu ko defee ci màggal gi ku ne xam ne sunu diggante ak bëgg yonent bi alayhi salaatu ñu defal leen promotion ci téere bu tedd bi. Mhm. muy chagaratu naayim nga xam ne ñëpp ñu ngi ko doon xaar. macha allah. su ko defee fell nañ ci vingt mille francs vingt mille francs moom mhm. mu nekk quarante mille francs. Mhm. teel na sax ci promo ndax téere bi dawagul yàgg xam naa sax ñi njëkkoon a am moom. danañ ne gars dañ leen beral loxo waaye yonent bi sallallahu alayhi moo toll noonu. su ko defee kon. ñu bàyyi ko xel. téere bi def nañ ko en promo mi ngi tàmbali nag. le 11 muy démb. Mhm. ba le 27. incha allah incha allah taala septembre ci lay jeex. Mhm. dañuy bañ nag la ñu daloon ci xulli bi am. Mhm. dem ba mu jeex gars yi di woote naan dama koo fàtte woon ak nangam nangam. <laughs> le 27 incha allah ci lay yem. kon ñu bàyyi xel lool incha allah taala. su ko defee secrétaire xulli bi nga xam ne dem moom moo nekkoon promo màggal. moom dellu na ci prime 60 000 am moom mi ngi dellu fi nekkoon. su ko defee tamit téere mooy téere bu njëkk bi. macha allah. Mhm. bi bii nga gis ni téere bu am solo la. bu am solo la. Mhm. moom nag liñ ci mooloon dafa jeex. Mhm. ba ñu defaat ci beneen mool. su ko defee mool bu bees bi 15000 lay jar. moo doon jar 7500. néew naa leen nag 7500 yi barkeelu la woon rek ci journée ba. comme dama defoon benn mool mool bi jeexul woon. ku ko bëggati na nga xam ne prix bi léegi ngi ci. 15000 francs 15000 francs. ndax moom li ci nekk ci njëriñ kenn xamul nu mu toll moom tamit. ci xeetu càngat tur yàlla xeeti luy dàq rab ak lépp a ci biir incha allah. Mhm. Mhm. jërëjëf Serigne Mayek loolu am na solo kon képp koo xam ne rek maanaam euh, xam-xam yitteel na la te ñor na la. Mhm. yaakaar naa promo moom euh, diggante bu gàtt la rek bu jeexee day jàllaat ci lam doon jar. kon ki ko yittewoo rek nga ñëw jokkoo ak bu ko defee ñu wax ni ngay def ba am ci. waaye Serigne bi ñu li nga xam ni it maanaam euh, mooy pamaat. am na pamaat bu am solo booy liggéey. te yaakaar naa aay na ci tooke. Serigne Malick lan nga ñu mën a indil ci pamaat boobu. waaw sëñ moo nekk nii moom nag dañu gis ne jamono ji xeetu tooke dafa sonal nit ñi. Mm-hmm. Euh, moo xam ay loxo loxo nit ñi am loxo nii. Mm-hmm. wala ñi koy wax bëy wala xeetu jigéen ñi nga xamante ni seen seen doom moo leen géex ci seen ween. Mm-hmm. nga xam ne boo ko sàgganee mën na dem ba def ay cellules cancéreuses mën na dem ba indi cancer de sein. est sax ñi nga xam ne dañuy xëy gis seen ween ween am ay doñ ay bul di metti yooyu yëpp pommade bi da koy saafara ci nu mu gën a gaawee. Mhm. wala xale yi nga xam dañu am oreillon oreillon mhm. yaakaar naa olof mu neex sekkeeg. yëkkati ko ñu gis pommade bu baax. pommade bi moo nekk nii. Mhm. xale yi nga xam dañu am oreillon. maanaam yaakaar naa moom la olof di wax sekkeeg su ma juumut. da ngay jékki-jékki yeewu gis sa fii toll nii. ah te xam ne dafay wàlle. ndax waaw dafa viral daal ndax dafa am xeetu virus bu koy joxe. fi ne nii boo ko amee bu ko xale amee bu naanee ci kaas sax keneen day jël. yaa ngi dégg. Mhm. wala ñi nga xam dañuy jékki-jékki gis seen tànk yi sadd wala seen biir. Mhm. yooyu yëpp ay sunguf lañ ko liggéey yoo xam ne ni boo ko ci tayee rek. Mhm. fu neewi neewi bi nekk ci sa yaram day daal di rees incha allahu taala te loolu nag doonu lu bees ñun dañ ko daan liggéey nii rek ku ñëw ñu jox la. Euh, na la demal nga def nga mais dañu xalaat ne euh, jamono ji nit ñi dañu soxla ku leen dimbali. ku leen dimbali. Uh-huh. boo ko defee nii dana nekk ndimbal njaboot. day noppal sax kii koy jëfandikoo. su ko defee moom gaawul jeex mën nga ko yor sa kër xale bu jàmbat dara wala yow sax boo jàmbatee dara. Mhm. bu dee neewee wala dara nga ci nga ko si diw incha allah day parce que sunguf la xam ne koo liggéey jat ko. Mhm. ko jat ba pare xam li ñu ci war a defee def nañ ko ci. macha allah moom nag pot bi nii pommade bi ñu ngi koy jaayee vingt mille francs. Mhm. comme li ma waxoon rek damaa bëgg cabinet du jar woote di laajte. waaw kon su ko fee ñu xabaayee xel ne. Mhm. pot bi égal vingt mille francs muy ñeenti junni. Mhm. amul feneen nag fu ñu koy jaayee fudul fii ci cabinet bi. macha allah incha allah. Mhm. jërëjëf sëñ Malick loolu na kon nag baa ngi noonu nekk pamaatu tooke. képp koo xam ne rek comme yi mu lim ni dal la wala gis nga ko koy jàmbat rek yebal ko fii bu soobee yàlla am yaakaar ni sa aajo dana faju waaye ñu wax ci kiis gi xam ni maanaam lëmbe na jamono. ndaxte wax dëgg yàlla kiis bari na loolu waaye bi efficace bi moo jafe te dafa mel ni sëñ Malick boobu laa gis nga di ko liggéey. waaw sëñ Modou li nga wax ci kiis mhm. am na solo kiis gi moom ñëpp xam nañ ko mhm. moom nag euh, dañ ko liggéey fermé ko ci bouteille bu hermétique nga xam ne boo ko dajjee yaa ko dajjal sa bopp dafa am sécurité rek dafa am mhm. sécurité ndax liggéey dafa war ànd ak hygiène surtout ak sell dafa am solo te li ma wax rek jamono dafa doy waar mën nga jox nit sax ndox mu dem naan ko accidentellement moom beneen tawat sax bu nekk ci biiram mu biiram daw wala dara mu ne garab gi ma naan la te yooyu la ñuy bañ moo tax ñu nii am na ku nekk bitim réew di ma laaj na bu fekkee ñoom la duñ mën a yóbbu butéel mën leen butéel bi du ci dara man maa ko def ni cadeau rek su ma neexoon ma def ko këyit jox la mm-hmm. léegi su ko defee bu nekkee ku nekk bitim réew këyit bi lañ koy yónnee rek mm-hmm. ci enveloppe lañ koy def jox ko kiis bi nag benn nit moo koy naan mm-hmm. doo lu ñuy séddoo benn nit moo koy naan onze mille francs lay jar incha allah muy ñaari junni ak ñaari téeméer rek leer na leer na nañ jërëjëf loolu am na solo kon nag bu ko defee rek sëñ Malick ñu jàll ci li nga xam ni ñëpp moom lañ bëgg. Mhm. muy bayre tubaab. Mhm. te yaa ngi ciy liggéey yu doy waar. Mhm. am na yu ma fekk fii nga di ci nga di ci liggéey xam naa ni dinañ leen ko wan ci image yi. waaye sëñ Malick ki nga xam ne dafa yittewoo bayre tubaab soit mu nekk bitim réew wala mu nekk Sénégal wala mu bëgg di jëflanteeg ay tubaab. nu muy def. waaw sëñ Modou. ni ma ko waxee rek. al yahudu wa nasaara. yàlla moo leen teral ci àdduna. dëgg la te foofu ñu nangu ko. yàlla dafa wax ci alquran. ne yaa banu israil eh waa banu israil mhm. man mii maa leen gënale ci biir xeet bi mhm. yàlla du waxantu moom moo ne moom moo gënale waa banu israil ci biir xeet bi kon dafa am loo xamante ne mbir yàlla la mhm. nga xam ne dafay jël koom-koom alal xam-xam lu bari jox leen loolu il faut nangu ko te ñun ci àdduna lañ nekk te foo ñu jëf jëfi kuy dund waaw kon foofu ñu jëflante ak ñoom. Mhm, mënta ñàkk. li ma ko wax nee naa bu Afrique amee ressource. Mhm. am potentialité mën a jëlee fii ci suñu réew mi lu bëree bëree bëri bañ a jéggaani dara. Mhm. mais dañu am problème exploitation. te loolu foofu ñu nangu ne bët li ma wax rek nee naa diggante tubaab bi ak nit ko ñuul ñi misaal mi yàlla joxe na ko si suñu yaram mooy bët bi per bu ñuul bi ak per bu weex bi mënuñoo tàqali ko. déedéet ñoom ñaar ñooy ànd nga mën a gis. noonu la kuy xeex loolu da ngay sonn loolu bay boobu ñu xam ko. mënut a dañ il faut ñu te yàlla sax moo ne dama leen def shu'ub ak qabaa'il li ta'aarafu dama leen def ay giir ay xeet ak i waaso ngir ngeen xamante. Mm-hmm. <laughs> loolu kenn kuy wax yàlla la. waaw waaye inna akramakum indallahi atqaakum ki gën a tedd ci yéen nag mooy gën a ragal yàlla teddaange moom leneen la. Mm-hmm. teddaange leneen la waaye nag xameel bi dafa war a am. Mm-hmm. moo tax munoo nekk ci réew nasaraan yi te amoo bayre boo ko defee da sonn. Mhm. te faaw nga jëflante ak ñoom. faaw nga jëflante ñoom. Mhm. da ngay gis koo xam ne day dem Europe du fa def sax ñetti weer. Mhm. yàlla boole kook borom alal joo xam ne nasaraan la mu bëggal ko boppam. ndeysaan dénk ko loo xamante ni maanaam ab diir la ci itam mu ne ko sama testament bindal naa la ko jox la ko. bu ma dee sama alal doon na ko. waaw loolu du dara ci tubaab. tubaab yaa ngi jël ay kalbu ay xaj di leen defal ay testament ay ay muus. ñooñu ñu mën a lekk alal yi <laughs> alal yooyu mujj day mujj ci banque yi lay mujjee naax saay rek. ah mhm. amul sens moo tax. sëñ Modou gis nga ni ñuy liggéey bayra tubaab bi. Mhm. yaa di nga ko wane sax. incha allah man sama liggéey lépp par étape mhm. du ma waxantu du ma sorxo sorxo du ma yàkkamte. dañ koy bind ba mu sell ñu traité ko jaar la fi ko war a jaar yëpp. ci kàttanu yàlla daal di koy jox ki nga ko war a jox bu jëfandikoo gis ci li mu war a gis. lépp nag bi isnilaahi taala man nee naa aw ma monopole force day am. yàlla rek laay ñaan waaye rek lii moom xam-xam bi yàlla joxe nañu ko incha allah te incha allah dinañ ci def mm-hmm. su ko defee bayre tubaab bi wax naa ko ku ko soxla cent vingt cinq mille lañ koy liggéey mm-hmm. cent vingt cinq mille francs ñaar fukki junni ak juróom mm-hmm. kon leer na leer na mhm. macha allah léegi sëñ Malick ñu indi ci tuuti rek leeral ci ñi nga xam ne dañ ko yittewoo te amaana mënuñu koo fay kaas mhm. ndaxte mën nañu maanaam dog prix bi nga xam ne bu ñu joxee xaaj bi en a da ngay jël sa temps lépp rek ngir maanaam di am résultat yu am solo mhm. ndax ku ko bëgg te amu ko maanaam nu mu ko mën a fayee waaw euh, li ñuy wax moratoire am na moratoire waaye nag ci kaw mooy masalan bëgg nga produit bi nga woote ne avance naa ci temps. ñu tàmbali la liggéey bi. Mhm. li ba liggéey bi di pare nga mottali. Mhm. loolu dañ koy def. macha allah. beneen bi tamit mooy comme li nga wax sànq man du ma ànd ak ku yàkkamti parce que liggéey bi man du ma ko soroxo soroxo. Mhm. man bokk naa si ñi gën a compliqué même ñi may bindal xam nañ ko. boo ma indilee bind damay toog di ko vérifier. di ci xool di ci xool di ci xool bu ma ci gisee benn faute dama koy reprendre à zéro. parce que alxuraan bu léppam xoolee ne jar mhm. lépp dox lépp bañ am benn fët nga xooj ko ci xooj bu sell def ko ci anam bu sell jox ko nit ku sell wallaahi day am résultat mhm. nañ ñu dimbali nag ñun sëriñ si dee la nga gis ku ci góorgóorlu di liggéey liggéey bu baax mais ki mu koy jox mhm. li ma wax sama benn sama benn xarit ma ne ko li fi wóor te baax bari na waaye ñi wóor te baax ñoo bëriwul bëriwul dëgg la parce que bu fekkee ñu ngi lay jox saafara alxuraan bu baax ngay mooy yàlla di njaaloo def yooyu da dugal sa bopp rek. loolu kéemaan la yàlla yàlla musal ci loolu azallah minha mhm. jërëjëf sëñ Malick yaakaar naa loolu am na solo waaye tamit ñu wax ci li nga xamante ne nii maanaam moom la ñëpp doon xaar mhm. muy isa jaa nekk saar boo xam ne saar bu bëri ay njariñ la mhm. sëriñ Malick am na loo ñu si junjuloon waaye ba gën nañ nga junju laajte lañ ci leneen loo xam ne rek maanaam askan wi dinañ ko mën a jariñoo waaw sëñ Modou isa jaa wal fathu moom dafa bëri ay njëriñ xam nga am na ñoo xam dañ naan la bu ñu jullee suba dañ koy jàng dix-neuf fois bu nu jullee bu nu demee ba julli gee ñu jàngaat ko dix-neuf fois léegi man nag lii tax may développé xam-xam mooy dama bëgg nit ku nekk tax wala taqfu maa laysa laka bihi ilmun bul def loo xam ne amoo ci xam-xam mhm. maanaam nit bu ñu woon ne la Modou composé ma 633 14 14 exemple Mm-hmm. damaa wax xaw ma numéro jàmm maa ngi jégalu sax nag. Mm-hmm. damaa xamul sax numéro sama xel a ji nekk rek. Uh-huh. voilà su ko sa téléphone doo ko laaj ne ko kii kii kan la wala loo koy doyee. Mm-hmm. am. waaw wala ngay jékki rek composé. déedéet. léegi nag buñ la waxee liggéeyal chiffre sangam dafa war a am sa xel day gën a dal nga xam li ngay gën a def mooy lan. xam nga isa jaa nasrullahi wal fath boo ko jëlee ba ca kaana tawaaban égal quatre-vingts lettres. mooy juróom-ñett fukki xaraf la doon. Mhm. kalima yi muy mooy égal dix-neuf kalima dix moom. Mhm. kon gis nga waaye ci biir dix-neuf yooyu am na ñoo xamante ne dix-neuf yi ñuy liggéey ñu ngi ko sukkandikoo ci dix-neuf mooy isaaja moom lañ jël di ko liggéey ci isaaja nasrullahi wa fat mhm. day dox waaye innamal amalu bi niyaati jëf yëpp ci yéene la aju. waaye am na beneen 19 boo xam ne moo làqatu ci biir ci biir saar bi mooy boo tàmbalee ci isa jaa nasrullahi wal fatxu soo tàmbalee ci alifu isa jaa ba jeexee xaaw fatxu 19 mhm. lettres la moo tax ñiy wut ubbeeku dëgg-dëgg ak ndimbalu yàlla dañuy sukkandiku ci ah, laaya ji isa jaa nasrullahi wal fatxu mhm. nga xamante ni 19 yi ñuy liggéey ci isa jaa foofu lañ koy yéene su ko defee yàlla daal lay fekk si loolu est kon jàppal ne yow mi nga xamante ni bëgg nga am ubbeeku bëgg nga am ndimbalu yàlla soo saxoo di liggéey isa ja nasrullahi wal fathu wa raayta annaasa yadxuluna fi diinillahi afwaajan fa sabbih bi hamdi rabbika wastaghfir innahu kaana tawaaban nga koy def 19 fois matin et soir di nga am ibbeeku di am ndimbalu yàlla mm-hmm. waaye ba tey sëñ Modou isa ñetti aaya la isa ja nasrullahi wal fathu mooy premier verset bi mm-hmm. wa raayta annaasa yadxuluna fi diinillahi afwaajan mooy deuxième verset bi fa sabbih bi hamdi rabbika wastaghfir innahu kaana tawwaaban muy troisième verset bi su ma la ko doon tey leeral dama naan lañ trois étapes la mhm. nasrullahi wal fathu loolu la jullit ñi soxla woon bi ñuy xeex ndimbalal yàlla ak uk ibbeeku mooy mhm. fathu màkka bi mu amee mhm. mooy ca la ca lañ yëndu salaa salaam def xutbaam mujj ba sax daal di wax ne maanaam al yawma akmaltu lakum diinakum nee nañ sax nee nañ ci ay nelaw la ko aaya bi fekkee ngeen baal ma nag du ma oustaz damay leeral ci lasaraar ci état bi may leeral. Mhm. su ma defee itam njumte ngeen xam ne kii wax <laughs> ab borom lasaraar kat waaye du borom sharia na leer waaye boo gisee saar bi ni mu taxawee warayta naas yadxuluuna fii diinillaahi afwaajan léegi nag comme nasrullaahi am na. Mhm. fathu am na ah dafa dëggal nit ñi danañ daw ne dugg ci diina la diina yàlla ji. Mhm. te noonu la demee sax. ginnaaw ba loolu amee diina yàlla ji bari na ba nii nii nii ñaa ngi daw dugg ci biir. waaye léegi ki dugg ci diina luñ koy lan lañ koy xaaree après bu duggee ba pare. fa sabbih bi hamdi rabbika xanaa xamoo fa rabbika rek soo ko xoolee 666 la. Mhm. fa sabbih bi hamdi rabbika rek égal 666 nga xam ne moom léegi moom lañ wax ilim yi moom lañ jël ne mooy chiffre di jaabul loolu du dëgg de turu yàlla dëgg la fa sabbih bi hamdi rabbika. est-ce que. wastaghfiru innahu kaana tawwaaba sa borom yàlla day day jégalaade. Mhm. kon ñun bu ñu xasee ba ba engagé wu ci diina ji ba dugg ci nañ war di sàbbaal yàlla fu ñu toll di ko jégalu. Mhm. léegi nag mbóot yooyu moo dagaloo ci biir Isa Dia. moo tax ki bëgg ndimbalal yàlla ak ubbeekom di ko def 19 boobu waaye war a ayta naas yee doxul na fi di la afwaajan diggante boobu boo tàmbalee ci waaw war a ayta mhm. ba ci alif gi mu mujjee ci afwaajan égal 31 lettres fanweeri lettres ak benn moo waral ñi nga xamante ne dañoo bëgg mbooloo mhm. nga xam ne mbooloo la ñuy wër ñooñu dañuy liggéey isa jaa ba fa mu yem 31 fois par jour matin et soir mhm. <laughs> sëñ Modou loolu kéemaan la de waaw dama lay wax te lu doy waar <laughs> ku bëgg mbooloo. Mhm. ubbeeku del def 31 isaa dia matin et soir nga xool su ko defee bu ñu ñëwee ci troisième étape. léegi mhm. fa sabbih bi xam hamdi rabbika wastaghfirhu innahu kaana tawaaban mhm. nit ki nga xam ne nag moom yitteem yëpp mooy dafa bëgg a sell. dafa bëgg a set. kooku isa dia ndax boo tàmbalee ci faaw fa sabbih ba ci alif gi jeexee tawaaban égal 30 lettres muy fanweeri lettres. su ko defee ki bëgg yàlla defal ko njëgal. akuk sellaange isa ja lay téye trente fois matin soir mu xool mhm. mu xool li may wax nii léegi ki nga xam ne nag moom lépp la bëgg yàlla defal ko ko yii yëpp maam bëgg na ci ñetti étape bi mu egsi mhm. kooku day jël quatre-vingts isa ja bu koy liggéey subaa ngoon mu xool quatre-vingts isa ja quatre-vingts mhm. fois xam nga isa ja dafa beneen mbóot bi ci làqatu soo jëlee maanaam quatre-vingts lettres yi ak dix-neuf mooy lu mu lay jox du quatre-vingt-dix-neuf ah waaw léegi boobu nag mooy daj dëpp gi 99 mhm. isa dia suba subaak ngoon ku koy def di dem ba ñuy jiiñ la loo xam ne defoo ko defoo ko est-ce que maanaam ci ndimbal ak fatxoog lépp 99 isa dia looy mhm. liggéey juróom-ñeent fukki per ak juróom-ñeent isa dia léeg-léeg nit da lay woo naan la li nga wax nag man chiffre bi laa xamul ndax nit ñi xamuñu kurus mhm. léegi kurus gaa ngi nii téeméeri per la sëñ Modou 100 per la benn bi rek laay laay bàyyi benn bi laalu ko léegi ma tàmbalee fii Uh-huh. isa jaa nasrullahi wal fath wa rayta naas yadxuluuna fi diinil afwaaja fasabbih maam benn per xëccaat uh-huh. lii yomb na waaw yomb na moom léeg-léeg ma dugal benn secret wax benn lim ko uh-huh. wax naa ci keroog 1947 isa jaa benn femme dugg ne loolu daa bëri te wallaahi mi ngi def lu gën a metti loolu am na femme yoo xam ne ngoon bu jot ñu ngi sol seen jokkin ne dañuy dem si salle de musculation yi def fa 3 heures de temps rey seen bopp te amuñ ci yàlla amuñ ci yonent ndem gi yaram baax na waaye comme jarale na loolu semaine bi nga jël ci benn jur sax toog sa sigaada même bu dee ñetti waxtu. Mhm. jaamu yàlla dafa neex. dëgg la day dundal xol xam nga bee dafay dundal jëmm ji. Mhm. di tàggat yaram bi ngay belli di normal bii ruu bi lay dundal nañuy dundal suñu ruu yi di ko bernde. Mhm. lu am solo la de. <laughs> su ko defee sëñ Modou kon gis nga secret Isa Dia 99 bi dafa taxawaat ci Allahu waaxidu wahaabu. Isa boo xoolee ci 80 lettres yi ak 19 mooy 99. boo jëlee allahu jël waaxidu jël wahaabu moo la ko joxaat mhm. kon gis nga léegi moo tax am na ñoo xam ne sax dañuy jël dañuy jël isa jaa ba mu jeex ñu déchiffré ko bu nga ko déchiffré mu jox leen 6713 maanaam isa jaa ba mu jeex mhm. égal juróom benn junni ak juróom ñaari téeméer ak fukk ak ñett 6713 6713 léegi ñu koy liggéey ci allahu wahidu wahab allahu wahidu wahab allahu wahidu wahab 6713 bu ñu paree ñu liggéey isa ja nasrullahi wal fath ba fa mu yem 99 sëñ Mori jox naa leen cadeau bu rëy macha allah loolu kay kéemaan loolu daal demee ni mooy daj dëpp gi moom su ko defee nag li ma leen di jox yéen ñëpp na ngeen ko teewlu ku nekk ut sa dama leen di jox benn istiamal bu complet ci isa ja ñu tëjee ko mhm. tey sama yaram dafa tàng istiamal bi ku xam ne ni bëgg ngaa liggéey isa ja te am ci li nga bëgg lépp mhm. nga saxoo ko di ko liggéey nii ma waxee nii wallahi azim di nga dem ba di nga ma yónnee hàddiya man leer na ma naaj. Modou da ngay da ngay da ngay tàmbali ci istighfar nga def cent fois istighfar. nga jàng sa salaatu ala nabi boo mën rek baax na. sallallahu ala muhammad ya rabbi salli ala mustafa allahumma salli ala sayyidina wa sallim allahumma salli allahumma salli ala nasir bi haqq ba ca fa sala faatee ba fu mu yem fu lu la neex salaatu ummi loo xam rek liggéeyal cent fois nga def isa jaa nasrullahi wal fath isa jaa nasrullahi nga def ko dix-neuf fois maanaam aaya bu njëkk bi ngay liggéey 19 fois. Mhm. ngay ne yaa fataaxu yaa fataaxu 1608. Mhm. junni juróom-benn téeméer ak juróom-ñett 1608 yaa fataaxu maanaam boo defee Isa Dia Nasrullahi wal Fathu 19. Mhm. ngay ne yaa fataaxu 1608 moo tolloog Isa Dia Nasrullahi wal Fathu nga def war a ayta naas yadxuluuna fi diin laa afwaajan 31 nga liggéey yaa jaamiu 2011. yaa jaamiu 2011 moo tolloog war a ayta naas yadxuluuna fi diin laa afwaajan nga ñëw ci fa sabbih bi hamdi rabbika wastaghfir innahu kaana tawwaban nga liggéey ko 30 fois nga liggéey astaghfirullah al-azim 3094 3094 moo toll ak fa sabbih bi hamdi rabbika wastaghfir innahu kaana tawwaban mhm. sëñ Modou boo paree nga def sa julli si yoonte bi ñaan li nga bëgg nga saxal yoon bi nga xool bu la neexee nga def ko ay riyaada ay fan bu la neexee nga def ko xalwa bu la neexee nga saxal ko daa iman def ko laazim di ko di ko zikkar mhm. di nga am barke di nga gudd fan da nga wér da nga am ndimbal da nga am kattan te isa jaa mooy saar boo xam ne ku koy liggéey da nga am force Mm-hmm. mbëri mbëri bëri làmb bu ñu xamoon secret Isa Dia. <laughs> est-ce que dootuñu <laughs> naan protéine. <laughs> waaw ak créatine. loolu de kii man la ah, waaw duñu naan yooyu. Mm-hmm. wallaahi kon gis na sëñ tey li leen indi ci Isa mm-hmm. ñi ngi ñaan nag lépp luñ ci wax. yàlla na ci yàlla def barke ba képp koo xam ne jëfe nga ko yàlla nga ci gis li ci suñ borom dige mhm. ndax du samay wax wax yàlla mhm. kon sëñ Modou tey loolu la ñuy suñu kàddu dellu delluwaat kàddu gi incha allahu taala sëñ Malick dama lay jox rek bu ko defee mhm. nga tàggoo te fàttali nit ñi adresse bi ñi nga xam ne dañ lay yittewoo buñ bëggee jàkkaarloog yow nu ñuy def waaw sëñ Modou ñun ñu ngi fii ci Kër Massar euh, cabinet Cheikh Touba mi ngi ne ci Euh, su ko defee itamit ku fi bëgg a ñëw boo ñëwee ba station Kër bi rek. Mhm. station Kër Massar bi. Mhm. boo laajtee oto yi jëm Arafat. ci mhm. terminus 53 bi dañ la koy wan. nga ñëw ba foofu boo wootee cabinet baa ngi fi incha allahu taala kon sëñ Modou li ñuy wax rek mooy na ndaw ñi gën fonk xam-xam. te gën a góorgóorlu ci xam-xam. te gën a jaamu yàlla te ñaan ko suñuy soxla ndax yàlla rek a fi nekk. kon di wax in uridu ilal islah ma sa taatu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unibu assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk yi cabinet sajaratu Touba ngeen fekk fa Serigne Malick liggéey mi yàlla baaxal adresse bi nag benn la ñu nga ci Kër Massar terminus su 53 bi numéro téléphone bi di 77 539 19 04 wala 77 507 38 63 yéen ñi nga xamante ni da ngeen a jaaxle woon ci xeetu feebar yi moo xam diabète kyste fibrome arthrose impuissance sexuelle maanaam tëlee ci wàllum sëy moo xam prostate hémorroïde bi feeñ ak bi làqu maladie dermatologie sa derub yaram bi ami jafe-jafe am nafa tamit massage automatique ba ci massage manuel Serigne Malick liggéey mi yàlla baaxal laa biir lool ci doomu aadama yi ne ma cabinet Sajaratu Touba bi képp koo xamante ni da ngaa am jafe-jafe ci wàllum këyit maanaam nga tukki wala it nga bëgg a tukki wala it nga bëgg ay muslaay képp koo xamante ni tamit cet da laa sonal rawatina nag nga bëgg ubéeku ubbeeku mbaa it nga bëgg am kaaraange maanaam aar sa bopp waajaa ngi nii Malick Guèye mi yàlla baaxal dina la tàggat ci wàllum xam-xam maanaam secret yi nekk euh, ci téere alxuraan yi mën nga faa yegsi ngir wecceeku ko kon mbok mbokk yi adres bi benn la Kër Massar euh, terminus 53 cabinet Sajaratu Touba ca Kër Massar terminus 53 ngeen fekk fa Serigne Malick Guèye mi yàlla baaxal mbaa ngeen woo ko ci 77 539 19 wala 77 507 38 63 kon mbokk yi xarit yi yegg leen fa seen aaja faju waay